73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóor ami internet Sunugal 24 mbégte la ñuy am di ànd ak yéen saa su nekk ci suñuy programme yéen a ko doon laaj nag tey yaakaar naa ne eh, dañoo doxantu ba ñëw fi nga xam ne moom moo di Pikine seet si ndaanaan ci biir ndaanaan yi xale boo xam ne yaakaar naa ne jamono ji eh, boo waxee turam rek ñëpp xam fi mu bokk waaye itam eh, ñëpp bëgg ko ndax liggéey bu sell bu am solo bi muy def mu di Fallou Ndiaye Benjamin bokk ci li nga xam ne moom moo di Ramdan euh, dañ ko seet si ndax tey pelloog moom comme si Steva moom mooy wër ndaanaan ci biir réew mi waxtaan ak ñoom lépp di kafoo ak ree bégalante waaye itam ñu gën a xam ki ñu invité moom mooy kan ginnaaw ay fan sam ñoo ko doon laaj andil nañ leen ko tey Fallou dañ lay nuyu di la ziar di la bàyyi ak ami internet yi Sunugal 24. waaw euh, Eva maa ngi lay ziar di nuyu sa équipe bi nga àndal. waa Sunugal 24 di leen bégee bu baax a baax di nuyu képp ku ñuy setaan bépp sénégalais bu ne ci réew mi muy ci diaspora bi foo waay mën a féete maa ngi lay nuyu di la char di la bégee di la màggal. Fallou da ngaa wala da ngaa yaru wala turandoo bi la. <laughs> ah mais ñun nag nii lañ mel moom. dëgg yàlla foog na ku ñu xam-xam ni ci tey dal-dal. lañu ñu lañ ñu lañ ñu xamee lañ ñëpp xamee. <laughs> macha allah euh, Fallou tey sa tur àgg foo xam ne boo nee Fallou Benjamin rek ñëpp euh, xam nañ la amaana sa tur àgg na foo xam ne jëmm ji àggu fa lu waral lool secret bi. waaw amul secret foog na ndogalu suñu borom la rek tey dañoo juddu nekk ci ci ci famille boo xam ne ñëpp ràññee na leen ci art ak culture muy famille Faramareen bi ñu bokk. waaw Thione Seck bokk ak sama yaay ndey ak baay xam ñu ñu ñu ñu juddu bokk ci ci deret ba pare bëgg aar bi nag euh, di ci yëngu euh, suñu borom tamit comme ci suñuy njiit suñuy nijaay ak suñuy kilifa la jiital ñëpp xam leen foog naa bu ñu yëngoo te dëggal ko ak amour biñ ci am xam naa noonu lay demee rek ba ba ba ba ñëpp xam euh, dégg fàllu Benjamin. macha allah euh, say début de carrière naka la demee parce que tey jii euh, li may wax rek sa tur àgg na foo xam ne yow mii ci boppam sax peut-être mën na la jaaxal sa début de carrière naka la demee naka nga def ba percé naka nga def ba dugg tey ci métier bi. waaw ni dugg ci métier bi moom foog naa wax naa ko ci sa sama interview yëpp euh, ñun dañ doon jàng école suñu papa digal ñu ñu jàng suñuy waajur bi ñu jàngee dem ba quatrième secondaire. ci lañu bàyyi dem defi commerce parce que man bi may dem di defi commerce bi dama ne woon damay dem dimbali sama yaay xam loolu jàng bi day yéex quoi waaw dem di jaay ay portable téléphone yi nekkoon naa maquette Colobane jóge fa euh, parce que ci temps boobu mbay si sama mag ñu koy mbay si Ndiaye Mbuur ak Bër boobu mi ngi tëgg ay programme ay ngénte ay mariage ak yu deme noonu ci mbedd mi di tëggi des fois nag damay ànd ak moom di di të di di tung ni ngi may gis nii dama daan dama daan tung ne dama daan tëgg sawar waaw euh, bi ñu demee ba ci biir tam euh, moom mu yoroon benn clavier amateur ba mu daan foowee néegam di ci foo parce que moom moo njëkkoon bëgg nekk clavis mais boobu moom mi ngi tëgg sawar sawar sawar yi tënk ko quoi parce que aar dafa nekk loo xam ne dafa garaaw loo ci bëgg rek faa nga concentré wu ci sinon benn bi dalay raw mais moom comme ci sabar la gënoon a concentré wu euh, moo tax euh, côté clavier bi raw ko tuuti ci loolu euh, moom su ma saan génn damay ñëw jël clavier bi di ci foo mun na mu may tooñ naan ma yow clavier si ngay nekk que ma ne ko fan nga teg clavier laay ne mu ah, naa ma sama sa loxo yi ni ñu bindoo di ma tooñ affaire naan waaye ci noonu daal la ñuy jógee dem école des arts xam nga di di di di di jàng musique dafa un an et mu xaw a métti ci maire bi fay beeg yooyu ñu bàyyi commencé di continuer ci programme yi ay mariage yeeg ngénte yi léegi comme dama naan dem ci ne léegi may ñëw en tant que claviste foog naa loolu mbéy si euh, bu ko njëkkul def bokk na ci ñi ko njëkk a def ci ngénte yi ngay gis clavier am wala mariage yi cla mu ànd ak clavier mm. waaw ñu dem ba ci loolu mu siiw ci ba cachet am sax yokku ci. booy ñëw di waxaale ak moom na koy wax mbaa clavier bi dina ñëw euh, ñu dem ba nit ñi bëgg ko ñu nekk def suñu continuer suñu apprentissage ci mbedd mi ba ba nit ñu demee Ousband groupe tonton Ousmane Seck foofu foog naa foofu la ñu njëkk a démarré ci groupe bi ñu bi ñu ginnaaw bi ñu génnee ci mbedd mi mariage ak ngénte yeeg yooyu. mariage ak ngénte yi daal ñoo la ñoo la gën a formé. waaw xam nga euh, lépp ci mbedd mi la nekk lépp ci mbedd mi la nekk tey euh, musique dafa nekk affaire boo xamante ne nii yëg-yëg la waaw day nekk ci yow aussi faaw am don bi deuxièmement tam lu bëgg ko pour suñu borom mën la mën la ci may dara waaw foog naa euh, mbedd mi. moo fa la rythme nekk fa la nekk parce que imaginer ngay tëgg euh, ñuy tëgg ay ceebu jën ngay marimba ñuy tëgg baara mbay ngay marimba ñuy tëgg dagañ ngay mbaa comprendre nga boo ñëwee ci musique da day fekk rythme nekk ci yow quoi parce que xeetu rythme yëpp ñu ngi ci mbedd mi. Euh, ndaka nga def ba jigee Ouz Band ci Papa Ousmane integre biir Ramadane. waaw loolu euh, dañu nekk Ouz Band bi ñu bi ñu fa nekkee mu xaw a yàgg tuuti un jour euh, ñu jóge fa ndax euh, amoon na benn genre problème mu ndaw tons dàq ñu ñëpp <laughs> ñu dàqee euh, ñu dem ci la ma Ivnia jël si su fekkee temps yi Ivnia Ivnia mi ngi def mi ngi mu ngi mu ngi mu ngi génne woon album garab gi ay jaalu ko mba jóg ko xaw ma lan genre morceau daal période boobu ma dem ci IBNA ñu gisee wandoo moom tam dama koy wax fépp mu euh, jaar bi ma jaar ci garab gi dama ma marqué woon parce que nit ku oyof la macha allah Baye Fall te aussi ku ku ku ku bëgg ku bëgg ku gëm Pikine bëgg deretu Pikine macha allah euh, maa ngi fàttaliku benn jour mu may woo ñu war a dem jouer ji Thiès may woo jotuma. Euh, su fekkee sama téléphone dafa am problème mu ñëw fi ne ma ne mi ngi ànd ak euh, manager bi dama fàtte turam ne ma maa ngi lay woo dem ba léegi jotuma la fàllu te tey la ñu war a dem ma ne ko sama téléphone moo am problème bi ñu demee ba Thiès mi ngi yoroon ñaari téléphone mu jël benn téléphone bi rocci puce bi jox ma ko ni ma def ci sa puce loolu benn geste la boo xam ne du ma boobu ba léegi moo tax Yves ñu koy jaar lu baax rek lay am incha allah après bi ñuy jugee garab gi nag ci lañ ñu jubóolewaat ak toos ñu delluwaat Ousbane jamono yi laa mar kenn ak yooyu di tëgg foofu bu ñu demee ba ci biir un jour euh, euh, parce que foog naa ci jamono jamono bi Yves ñaa di tëgg Yves doon woon tëgg jour yëpp ko léegi dafa am des fois samedi wala dimanche boo xam ne penc mi day am. mbuus ne ma nañ jam bu mbuus moom mi ngi raam daan nañ jam penc mi nga ba nga baal fecc ma ne ko am problème ñu ànd dem damay taxaw di seetaan ba benn morceau boo ma neexoon morceau Abi bu Papa Thione Ndoye saa yu bi ñëwee rek su may yéeg dama ko tey quoi damay ñëw rek ma yéeg ma laaj claviste bi sama grand tey Lamine foofu na ni ko est-ce que mën naa jouer mu ne ma ñëwal mu yaatal ma ma ñëw bi ma ñëwee jouer euh, euh, groupe bi ñëpp gars yi di bëggee waa Mari Mbaye euh, affaire yooyu noonu toos commencé ma bàyyi xel léegi nag ma def ko yoon tool saa yu ma jouéwul rek damay dem foofu sama morceau bu ñëwee rek ma yéeg euh, ci loolu ñu dem ba ci biir Ramadane di wut Mari Mbis gars yi euh, Papa Thion ci moom sax la ñu waroon commencé yàlla na ko suñu borom yërëm. Euh, yeesal yërmande ci koom seral suuf ci koom mu taseeg waayam ja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, jamono jooju ñoom ñuy wut mbari mis mu laaj groupe bi gars yi ni ko non sa jarbaat bi Fallou ba fi doon ñëw fan yi baax na après mu woo mbay si ñëw mu mu ne mbay si boo demee waxal Fallou soxla naa ko. mbay si mu ngi ci mais mbay si comme. Euh, dañoo bokk ndey ak mu doon kilifa ci man doon papa ci man euh, maa ko gënal ay bëtam bi mu ñëwee daf maa ko jooy ma ne waa kii bi muy jooy waxaguma dara de muy jooy rek ma ne ko saa lan la dafay jooy mu ne ma non gën na wut mari mais euh, tonto coon nee na naa la woo nee na nga ñëw yow lañ soxla ko mari man jooyu ma nag waaye ma kontaan trop parce que xam nga ñëpp ci famille bi coon dafa nekk monument boo xamante ne nii suñu rêve ak suñu suñu lépp moo doon jooy ndoog moom. Mbaye Sy Ndiaye lan la doon jooy mbégte la wala daf ko gëmewul. non mbégte parce que boobu moom xam na ni man loolu laa doon rêvé xam na ni man li ma doon mooy ma dem bay jouer Ramadane jouer Ramadane moo ma gënaloon may ànd ak ku mu mën a doon ci àdduna même Michael Jackson. parce que loolu sama rêve la woon parce que ñun dañoo nekk ay jabaatu coon ba pare faamam coon bëgg ko muy fierté ci ñun ba tey nii moom dañ koy tiitaroo comprendre nga donc bu ñu demee ba ñëw ci groupe rek dañ ah xam ne nag léegi mën nañ def nii léegi liggéey bee ci des comprendre nga moo tax ma loolu la yëg ma yëg loolu mu kontaan bi ma demee tam ci tonto coon mu woo ma këram ma ñëw këram ci dëggu gi mu dëggu mu ne ma dañ doon wut Marie Miss gars yi choisir la ñu ma dégg naa la nag waaye dañoo bëgg nga ñëw pour dolli ci groupe bi mais am na ku fi nekk di marimba mais bu la gënee aay li ngay doon doon sama jarbaat da dellu moom mu continuer jouer ah, bu fekkee ni nag indi nga plus amul problème ma ne ko a ah, baax na. bi ma ñëwee nag toog naa tuuti tuuti mu ne ma toogal nga déglu morceau yi bu jouer ma nekk naa raam daan temps bu xaw a yàgg tuuti du ma joué damay damay déglu rek boobu sax man jël naa morceau yi mais moom comme mi may xool ak sama tuuti waay yooyu jàpp na ni peut-être mën naa xaaraat tuuti. mais noonu daal laa duggee biir Ramadaan ah ñu dem ba mm, Wally bu defee première partie wàcc Papa Thione yeeg mooy joué organe di joué organe ñu dem ba ci biir Wally di def album lu ne bi muy def album lu ne ma joué ci euh, Maman Kati. ak beneen morceau fàtte naa ci moom mu choisir ni ma léegi man samay morceau man del jouer marimba bu Pape Thione yëgee nga kon ne jouer organe mooy jouer ay morceau ci jamono joon nag morceau yi commencé di neex nit ñi ak ligne marimba yi yi ma doon def ak yooyu noonu ba Papa Thione moom tam bëgg ma ma ma ma continuer ak moom marimba yi noonu la Fallou débuté ko ak marimba yi foofu. say début carrière cachet yi ñaata la doon ñaata nga doon am cachet. <laughs> kese yi waaw xam nga xam xam nga ñun xam nga ñun xam nga musique dañ ci am nattu boo ko bëggee rek musique moom boo ko bëggee rek dina la fay nag mais euh, faaw bu jiital xaalis ci bagage yi amour bi ak bëgg bëgg prouver dara def dara moo ñu ëpp ëppaloon solo tuuti mais doon na metti trop jamono yi ñu nekk Ousmane ak yooyu waaw parce que ñun dèjà dañuy ñëw en tant que jarbaat nekk ci groupe bi comprendre nga bu doxul balaa kenn di comprendre ñu ñëw war ñu ko comprendre. xam moo tax des fois doon doon na difficile doon na metti bu fekkee ni saare bi demewul noonu ak yi demee noonu. lan nga ci mës a loo xam ne moo la ci gën a marqué. waaw li ma ci gën a marqué mooy euh, dan daan ñëw des fois soirée bi du dox. xam nga tons génne ni mu ni mu am séddale ko musiciens yi des fois daa <coughs> pardon des daawul mat taxeeg yooyu quoi dañuy dem jël super wala ñu dem dajaloo <laughs> ah dajaloo duggandoo ci benn oto <laughs> ah sama grand yi nekkoon Ousmane macha allah ñoom ñoom ñoom Cheikh ñoom Ibou Mbodj ñoom Ibou Dieng allah ba tey ñii ñu ngi ci Kéba ñii ñu ngi ci Ousmane. waaw mais euh, souvenirs yooyu daal des fois boo ko te moment bi ñu koy dund dafa métti woon mais fi mu ne nii boo koy xalaat dafay da dafay neex quoi maanaam daf lay daf lay retal la sax. njëkkee dem tournée internationale mu leer la ne tey jii da war a jóge ci réew mi dem ci meneen réew ànd ak artiste boo xam ne xëy na ñu ngi ko fay xaar que mu nekkoon sa tonton wala mu nekk Wally bi ngay liggéeyal yëg-yëg bi nga doon am lan la. waaw première bi ñuy bi ñuy dem tournée ànd ak Papa Thione moom ñu ngi waroon ñu ngi doon dem France mais dama mel ni monde bi ma doon daanu parce que. <laughs> contentement la waaw content contentement parce que xam nga xam nga déjà sénégalais maanaam nit sax laay wax voyager dafa dafa nekk loo xam ni boo ko musul def da da koy rêver quoi waaw da nga koy rêver léegi ñu ñëw Ramadan te man macha allah dama ñëw Ramadane rek première tournée am mu boole ma ci parce que bën moom da nga ñëw nekk Ramadane au say début bu tournée amee da ngay xaar gars yi di dem ak yooyu noonu xam nga man benn Gàmbi laa fekkee gars yi dem Gàmbi mu ne ma non Gàmbi bi da ngay xaar te boobu effectivement joué wu damay ñëw rek noonu en tant que kuy dégloo ak yooyu noonu di war a jël morceau yi mais bi ma commencé joué tak ñu war a dem Mauritanie ak France ñu dem Mauritanie ñëw war a dem France mu déposé mu dugal ñu ci ci ci tournée bi maa ngi si moo nekkoon suñu premier voyage mais je me rappelle bi ñu bi ñu <laughs> waal di woo di ñu wax may nañ leen parce que boobu dañu ne amoon problème mu comme ñun mosuñu dem est ce ñu may quoi waaw bi ñu woo di may nañ leen maa ngi béy si ñu kontante quoi. <laughs> loolu loolu looy fàttaliku la di kontaan nii parce que loolu nga doon rêvé. non rew la woon te euh, maa ngi fàttaliku bi ñu ñëwee ba dugg ci vol bi <laughs> dafa diisoon nag parce que bi ñuy dem bi ñuy dem dañoo teel a génn parce que man dama mën a tardé man dama mën a tardé. mbay kuñ ne da ngay dem France moom xanaa di nga yàkkamti dem. dama mën a tardé nag man moom boo ne ma woon xoola aljana sax boo demul naag boo ma jàppalewul ma tardé. léegi bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy waajee bi ñuy génn euh, mbay si foog naa foog naa ñu ngi waroon dem dix moom mu ne ma seize heures la ñuy dem pour bëgg rek ma teel a pare mais bi ñu teelee génn noonu bi bi mais bi ma waxee seize heures ay seize heures xanaa mooy trent minutes lañ la ñuy soo génn kër gi xam nga kon bu ma dañuy tardé boobu maa ko doon tardé quoi ñu génn taxi bi jubal ci tali bi noonu ci suñu ko ñaa ah, soriwul dara ay cinq minutes la tax bi daw rek benn camion génn rek bëgg taxi bi boom ba pare di ñu diri nag taxi bi mais xoola tali bi fees dali ñëpp génn léegi ñun ñu war a wàcc ak suñuy valise pour war a jëlaat benn taxi mais mbay si moom taxawul sax di jéem a masawu taxi maan beeg wala wax ak moom <laughs> wàcc rek mu ne mu arrêté taxi nii rek wàcc valise taxi maan beeg ñu dem dugg si benn taxi. est-ce que jot ngeen fay taximan bi sax. fay ñu taximan mi ñuy xaas di est-ce que saagoo ñu sax. lépp ci bëgg a dem. arrêté benn taxi bi dugal valise rek tëwaat bi ñuy dem maanaam non dañu fi bàyyi mu ne ma non tal talal 18 heures la maa la waxoon 16 heures pour bañ ñu tardé mais ay ay souvenirs yi neex la macha allah. laaloo leen garabu cat bi ngeen di dem. <laughs> garabu cat ah waaw mais xam nga rek xam nga xam nga xam nga <coughs> li tubaab wax tout début est difficile boobu dañ jàppoon rek comme ñu ngi soog a voyager faaw mu am ay yenn difficulté gi demee noonu waaw. Ah. allah dañuy génn ci point boobu jàll ci beneen point euh, tey jii dañ lay nangul li nga doon. Euh, bu ñu nee claviste bu gën a mag Sénégal dañu daan fàllu. Hmm? waaw dañ la koy nangul. Hmm. Euh, danga am jaar-jaar boo xam ne. wax nga ko léegi yombul woon ci yow difficile woon na. mais nga percé euh, nga nekk ci ki nga xam ne moom euh, yaakaar naa ne c'est l'artiste de tous les sénégalais mu di Wally Seck international sax laa mën a wax euh, secret bi ngay bi nga yor yow ak sa sa kii yi ni nga koy utiliser ba def tey jii nga siw lan la sa secret lan la inspiration yi fan lay jógee. waaw yi foog naa lu naturel la rek ci ñun parce foog naa. bi ñuy njëkk a def album maanaam man album bi nga xam ni waa daf ma daf ma daf ni ma album bii ngay defee say début arrangement maanaam ci bi leen lay jàppee comme arrangeur boobu yenn la boo xamante ni daf ma ko yenoon mu diis. ban album la. waaw euh, ni ma su réussir yow la su jaaree à côté yow la gaaw mu ne waaw. daal di may euh, maanaam loolu moom dama ko ciy gërëm tout le temps gërëm bu amul àpp parce que euh, responsabiliser nit ki yombul te fekk naa ko ñëpp di ko déglu fekk naa ko muy way muy neex mu ñëw ko Marie Miss di rakam ñu bokk deret bien bien vrai euh, noonu népp am na ci waaye confiance yombul mu jox ma ko ci albumam presque ma def ci six xaw ma sept morceaux yoo xam ne man maa ko arrangé loolu loolu dama ko ciy gërëm parce que ci loolu. moo non maanaam moo tax sénégalais yi xam Fallou Ndiaye Benjamin comme arrangeur xam nga tey euh, euh, bu boo jëlee ay désolé daf may dal waaye lii ay Baye Fallou yooyu yëpp dama ko composé. ah euh, tegal ko ko mu déglu mu jël ko ñu waxtaan mu jël rocc fii génn fii ci fii teg ci xalaatam ñu génn ko mu def noonu ci nit ñi loolu loolu euh, man fierté boo xam ne du ko fàtte mukk te. Koobay yaa ko joué. Koobay waaw <laughs> Koobay <laughs> euh, waaw Koobay ñoo ñoo ko defoon à l'époque mu defoon comme nii presque comme nii di la def la defoon rek mais mais boobu genre euh, jëluñu ko woon maanaam personnalisé ko wala dara quoi wala kii ko dañ ko bàyyi woon rek comme comme comme lu ñu fowee ci live mu dem ah <laughs> moom mu ko sénégalais ko waaw. di tambale bi naka la ñëwee ci sa xel. live la du du waali moo ne la forcément li ngay joué yow yaa toog ba xalaat ne lii boo ko joué dina neex sénégalais yi. waaw xam nga xam nga euh, Ramadan may nuyu may euh, nuyu di leen bëggee waat samay mag lañu ëpp ma xam-xam gën maa garaaw foofu mais yaatal ma ci seen biir ba jox ma nopp di waaw maanaam yamale wuñ ma wóolu ma Euh, loolu loolu tam loo loo xam ni la lu may saluer la ndax euh, ku ñu ku ñu ku ñu ku ku ñeme dañ laa dee. waaw ci live yi dañu de macha allah dañu am benn benn complicité boo xamante ni tout le temps day ñëw day ñëw Rita Mbaleek Koba yeeg lépp sur seen la ñëwee lépp dañuy foo. ma def lii kenn tontu ma lii ma def lii kenn feelu fii ba dara juddu noonu loon demee léegi nag bi ñu defee Ritambale ci ci live bi foog naa timis lañ ko njëkk a defee ñu def ko foofu mu neex nañ ñi man bii moom dama ko bàyyi comme wii dama koy jël ma ma ma ma ñu kii ko quoi waaw waaw koy jël def ko def ko vidéo jox ko Sénégalais yi waaw loolu loolu noonu la demee waaw moo tax ci Rita ba la ñu gën la ñu la ñu bëri xamee Fallou Ndiaye waaye avant Rita Mbale yeneen yeneen i bagage amoon na fi ci rythme ak euh, création. Koobay Koobay yaa ngi fi ak yeneen ak yeneen Fallou danga nga timide nii mais bu ñu la gisee ngay jouer sur scène da ngay jaabante des fois ba waal naa la bul fi jaaraal jaabante yi xam nga des fois nga fecc affaire boobu jaaxal na ma sur scène lan ngay laal ba tax ngay ànd ak rigueur boobu. waaw du ñu nekk lu ñuy laal mais xam nga mooy li ma la rek. dafa nekk suñu deret art ak culture dafa nekk nattu ci ñun comprendre nga sénégalais nag des fois ñoom ñu ci bari du ñu loolu du ñu comprendre ni euh, artiste bi dafa dafay sol mbubu artiste bi maanaam. boo yéegee sur seen waaw bu ma yéeg non bu ma yéegee sur la mais suma wàccee Fallou la comprendre nga. maanaam booy bu euh, euh, euh, tey am na benn taximaan un jour sama oto dafa am problème ma jël taxi jóge Dakar di ñëw maa ngi toog waaj mi may xool rek waxtaan waxaal nañ bu juboo maa mu dugg toog mu ngi may yóbbu mi may xool rek mu jey ne ma yow de saa dama laa xàmmee ma ne ko ah ci noonu mu ne ma noonu ma laa xàmmee yow oh, <laughs> ne ko <laughs> ma ah man la ma la Fallou Benjamin mu ne ma ah man de kii may gis ci télé bi ak kii may gis nii du benn. ma ne ko ah bon mu ne waaw ma ne ko waaw ma wax ko comme ni ma la wax rek ma ne ko Sénégal mais Sénégal lañuy jël musicien def ko caaxaan kat ku bon n'importe xam nga yooyu amatul yooyu temps yu njëkkee la woon maanaam dugg ci musique di di toox di nga di def di def lu kenn xamul loolu bu njëkk la woon mais léegi bon musique ay xale yu yu borom xel yu sell ci nekk xam nga. maanaam euh, il faut ñu comprendre benn affaire man dama am benn affaire boo xam ne nii wax mës naa ko wax ci benn émission télé bu ma doon def parce que dañuy jën musicien tu jàppee ko caaxaankat jàppee ko ku bon jàppee ko ku yàq société wala yu demee noonu amul réew ci àdduna amul réew bu mën a dox sans culture amul réew bu mën a dox sans art ar mooy lépp comprendre nga tey euh, euh, euh, musique bii ñu def mën naa ni mën naa ni nit musique na ci réew mi ba ubbi télé ki rajo ki leneen créé ci ay entreprise xam nga maanaam lu nit mën na nekk ci biir di foo wala di def n'importe quoi mais musique métier noble la c'est un noble comprendre nga pour ñuy gën a xam gën a xam ni maanaam ñi ñuy gis gis la ci télé wala gis la ci ngay ngay def musique ñu jàppee la euh, vaurien wala dara loolu nañ ko nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi te respectante Sénégal ñu gën a bëggante te aussi gën a gën a li li gars yi naan aimons-nous vivants ñuy bëggante ci sunu dund di jàppante parce Sénégal dama seetlu benn affaire boo xamante ne nii euh, yàq na yàq na lu mën na yàq mën na yàq lu nekk boo feebaree da ngay nga ubbi sa Facebook wala nga lugo ci réseaux sociaux rek gis ñuy ketal nit dafa tawat te mënta faju nga gis sénégalais yi ñëpp niñ koy taxaw ku nekk di partager kii di wax ku am cent franc def ca ko am million def ca comprendre nga. mais gis nga sénégalais boobu ñuy ketal ndax dafa tawat wala dafa feebar wala dafa am nekk ci jafe-jafe mais sénégalais bi nga xam ne tawatul nekkul ci jafe tam noonu lañ ko jàppalee moom ba euh, ci li mu nekk maanaam daal dama seetlu ni yërëm yërëm la ñu gën a mën daal maanaam nit ki dee nga ñëpp di ko waxal lu baax ak du kii xam nga nit ki feebar ñëpp di ko yërëm di ko ñaanal yàlla na nga wér dellu ci say activité mais sénégalais bi nekk ci activité am ci moment boobu noonu ñi chaque jour ñu ngi koy waxal lu lu koy yàq lu koy xam nga yooyu itam nañ ko bàyyi quoi maanaam ñuy bëggante ci fonkante jàppalante maana Mané mooy. meilleur joueur sénégalais sénégalais yëpp tàcc ko nangul ko ko bugg ko di ci ànd ak moom diw mu muy meilleur menuisier sénégalais xam nga maanaam ñuy sotan sotalante di jàppalante. li nga wax ni mbay si Ndiaye mas na ma ko wax bi Papa Thione di soog nelaw mu ne leen rek moo ko metti bàyyi ba Papa Thione nelaw ku nekk di génne ay seede ci moom wala ñu koy rendre hommage ce qui veut dire que ne sénégalais balaa mu laa rendre hommage wala mu waxal la sax mbaax rek nga làqu wala nga ne ci ay jafe-jafe euh, balaa ñuy jàll ci li nga xam ne moom moo des maanaam suñu deuxième partie dañu bëgg nga jouer ñu fii loo xam ne rek bu mbokk ak euh, Rita Mbalé ndax xam naa ne moom la ñuy tëjee sénégalais yee ko bëgg du nuyu bu baax a baax joor euh, sama tooma moom mi ngi depuis ba ngaay kuy bége Wally Seck la nee na ma nuyul ma fàllu Benjamin bu baax a baax joor sama jumelle euh, voilà ñu ngi koy bégee lu naturel laa bëgg fii loo xam ne rek créel ma ko fii léegi léegi ma bégale ko ñi ñuy seetaan ci biir suñu gal 24 ñëpp di wax Fallou mu di Waly hmm. papaam làqu na moo fi des ak yow ngeen di liggéey liggéey bu rafet ndaka ngeen di liggéey ak moom seen ay relation ak moom. waaw suñu relation ak Waly lu naturel la ndax euh, deret la d'abord ñaareel bi tam ñu bëggante lool suñu borom boole ñu parce que boole nit yi mënul weesu ngeen bokk deret ba pare bokk liggéey. fa boole mu ne am euh, mu doon nit koo xamante ni nit ku nakkaree xam nit ku nakkaree xam man waali bu ma gisee kuy wax ci boobu lu négatif damay benn naqar rek laay am mooy damay xam ni kii mi ngi wax ci kum xamul mais sinon lépp dama lay dawal compréhension parce que nit la boo xamante ne nii. Wally euh, mindaanam sax bu ko meree du du nekk bëggul nit ku mer bëggul nit kuy am problème moo gën a yéwén ci koo gis parce que ñu bari dañoo defe ni genre xam nga booy booy am xéwal di joxe foofu ku dëggu rek mooy mën a xam sa sa yéwén mais Wally avant muy am xéwal Wally daraan lépp di maye. waaye da doon lépp di maye ñu koy poñe waaye da daan fu jàmbur maye ko ci maye ñun maam moom dañ da danaa ànd di fubali nawetaan fii ba ay ngaay ci région yi defandoo lépp mais su ma gis nit bu mel ni moom moo tax lu ci bari rek du ma bett ci moom su ma ko gisee ci moom ndax ay reetaan sax daf may jàpp parce que damay xam ne kii li mu war a am ñëwagul parce que doomu aadama mun rek moo ko tardel maanaam pour nit bég pour nit ne ci jàmm rek moo ko tardel ci lu mu mën a doon xam nga te genre nit yu mel noonu dañ leen a soxla ci société tey boo gisee Sénégal du ñu xam nag lu ci ëpp du ñu xam seeni seeni maanaam li ñu yàlla may mais Wally ku mel ni Wally benn yoon wala ñaari yoon lay am ci réew ci cent ans wala cinquante ans ku ñu war a jàpp la ku ñu war di ñaanal la ku ñu war a fonk la parce que artiste la d'accord mën na li muy def gëm na li muy def gaynde la teg ci la mu cay am mi ngi koy bokk ak doomu aadama yi te loolu yombul Sénégal nag mooy mooy li may wax rek chaque jour dafa naqaree nekk parce que boo fi nekkee te joxe ñu ne moom de du joxe loxo bi dafa kët boo fi nekkee di joxe non ñu ne moom de ni mu koy joxee te ñoo xool fu mu koy jëlee <laughs> waaw wala ñu ne day wanewu mbaa ñu ne sax moom li muy joxe sax lewatul commencé laa jiin yeneen parce que am na fi yu bare yoo xamante ni duñ ko jiiñ pauvre sénégalais du ko jiiñ pauvre du ko jiiñ ñi ku siiwul du ko jiiñ ku ñu xamul ku ñu xam nga nekk loolu ci naka sulul noonu te kenn xamu la duñ la lijjanti dëkkal seen koñ wala nga ñu den ak yow kër duñ la lijjanti seen yoon nekkul ci yow mais boo amee tokk tur Sénégal mais loolu tam war nañ ciy di xoolante di maanaam mooy li rek aimons-nous nañu jàng di bëggante di jàppalante ñu solidaire ñu solidaire tey boo demoon Cameroun nga gis Cameroun yi fi ñu teg Samuel Eto'o wala nga dem Côte gis Ivoiriens yi fi ñu teg euh, Didier Drogba boo ñëwee Sénégal tam dëggantaan teguñu fa El Hadj Diouf rek joxuñu ko cër boobu. maanaam dañuy dugg sa vie privée lii lay def ak wala lii lay wax wala yu kenn xamul boo defalee réew mi na la réew mi tàccu la nga loo mënti mel ak lu mënti doon loolu sa vie privée la. comprendre nga ñi gën a bëggante daal di di supportante di tàcconte man daal loolu bëgg naa Sénégal ñu gën cee bàyyi xel daal. des fois Wally du leen tegal lu tar comme ni ko papaam doon defee nga xaw a jàdd rek mu tegal lu tar ci liggéey bi. non liggéey bi moom. Ramadaan liggéey bi. boo gisee fi muy àgg ak jéego yi muy def macha allah mooy dañ cee kaful foowuñ ci réewuñ ci dañ ci xuloo suñu biir répétition xeex sax dañ koy def. dañ léeg-léeg ñu répété xeex ci ñàkk d'accord ci benn affaire man gis naa ñu répété xeex deret génn du ma du ma wax kan ak kan la waaw comprendre nga di rey ñu répété di xuloo studio euh, euh, tey boo gisee album symphonie bi mu génnee bi ci ci lancement album bi Wally saalit fa ma saalit fa ñu songoo jooy mu taxal ma chaîne or bu seere seere seer parce que liggéey ba dañ ci daan dañ léeg dañ ci daan jàppante di ci xuloo doo ko way fii mu ne ma mu ne ma doo ko joué fii léeg-léeg dàngam sàngam sax ñu mer ku ne dem bu subaa ñu ñëwaat comprendre nga ñu ci ñu ci réewuñ ci ay xale lañ suñu borom nattoo ñu ko ñu dugg ci duñ ci mayee ñaari salaamaaleykum suñu fulla ak suñu fayda xool parce que tam Faramaren ba fan si dañoo sonn ñoo gën a sonn ci réew mi lu nekk la ñuy dégg donc ñu ñoom li àll wax rek nañu jàpp seen côté ñun suñu côté bu ñu am lu ñuy tiit ndax ñun dañ ko matal te xam nañ ñoo ñuy jaar. comme lu ne ngeen di dégg euh, Fallou fan yi gis nañ ci le douze bi ay image yoo xam ne euh, ku ci nekk li nga def xam nga lu tax nga def ko mais munoo taxaw fu nekk di justifier wu mu di image yu di Badiane bi ak Ameth Thiou est-ce que loolu nekkul ay image yoo xam ne war ngeen koy éviter pour ki nga xam ne moo leen jiite comme ni nga ko waxee sànq à chaque fois day faral di dégg yenn affaire yi. waaw non loolu du ma ni du ma du ma ni image bu rafet la wala image bu rafetul la maam nekkuma ci loolu ci li ma nekk ci li ma mën a wax mu leer mooy li ma la wax sànq ci samay début wax avant nga may laaj man la sénégalais nañu bëggante parce que ñun yu baree baree bari dañuy xam dañuy xam ci naka la jógee wala naka nu mu demee lan moo ko waral comprendre nga ñi ñi ñi ñi noonoo waali wala ramdaan ñu néew lañu ñu néew lañu soppee ëpp fuuf mais ñu néew ñooñu. dama bëgg ñu dem tëddi nelaw te noppalu parce que waali du ragal ramdan du ñu ragal ay xale ñu xam li ñu bëgg xam fi ñu jëm comprendre nga am na loo xam ne dafa rafetul nag man du ci jaar yenn tur yooyu ay euh, euh, borom ñaari tur ak yu kenn xamul comprendre nga tey euh, man plus de dix ans maa ngi ànd ak waali ñuy tukki i dem fu nekk ci monde bi macha allah. barke xaadim rasul euh, ci coow loolu laa xamee ni borom ñaari tur dañoo am drapeau buñ moom man loolu dama gis ni sax ñaax fayda la ci nit ñi na na ma baal ci maanaam ay ay ay nit yoo xamante ni tekkiwuñu dara nekk ci mbon jël seen seen euh, jël ay couleur ni ñoo ko moom nit ñi di ko ba ak ñoom pour lan waali ci la xamee ni lii drapeau bi pour lii la man mii ci Ramadaan ñi ñëpp ci parce que Sénégal léegi kaay ma la dañoo gaaw ci woowee nit oustaz gaaw woowee nit imam gaaw xam nga tey oustaz wala imam wala lu mu mënti doon dangay ngay nëbbu lu bon di siiwal lu baax. àdduna mën ak baax dafay yàgg waaye boo dee ku baax da tudd lu baax. di fësal lu baax di nëbbulu bon di di tuutal lu bon loolu mooy doxal àdduna mais da ngay gis tey koo xam ne nee na ustaas la moom wala imam la tudde boppam wala go xam ne moom ay ànd dafa jikko yeeg ànd sàmm xale yeeg nangam sangam. waaw Jamra nee na dafay saisir brigade des mœurs euh, des des mœurs pour fóonante boobu am ci def ak ak ak ak Amady yéen bu boobaa ban position ngeen di taxawee. xam nga lu gën a mooy fóonante. yow jàppee woo ko fóonante. aywaay xam nga ba ba loolu bëgguma cee wax sax yàlla xam na ko. mais léegi bu Jamra saisiré brigade des mœurs si yéen waa ban position ngeen di taxawee. boo déggee ci samay wax. ci samay début wax man la duñu ragal na gars yi noppalu mooy ñun xam nañ lépp fi muy jógee ni muy demee comprendre nga on a ci dëkk bi leen dëkk fooy dem rek ba fay waaj a wax wala nga fay waaj a def na la leen suñu soppee nga fa suñu mbokk nga fa. comprendre nga maanaam li ma bëgg a wax mooy lu loolu lépp li ma bëgg a wax ma man dama généraliser nii nañu bëggante ngir laaw su war a suuli nañu bëggante nañuy jàppalante ñu nañu soppante parce que tey euh, muy muy amet mbay si moo leen ni da ngeen fàttaliku jamono ku nekk ngi gis image ni mu demee ak fecc ba ba euh, bisu ba fa mu amee lépp ñu ngi koy gis waaw loolu bu amee tey te 30 ans ci ginnaaw wala 20 ans ci ginnaaw YouTube bi yàgg nañ ko def image yaa ngi ci YouTube bi ak fépp yàgg nañoo fecc pesante nit ñi ree wala fecc daaneel fóonante wala fecc daaneel toog ci kaw nit yu demee noonu affaire yoo xam ne ay mbalak la comprendre nga tey gis na euh, euh, euh, Gris Bordeaux daan na bëre ak adversaire am di ko ñaawal di ko di ko di ko di ko biisu est-ce que amoon na ampleur bii ni wala nga gis ñu parce que boo ko collé boo jëlee image bi pose ko ni ñaani dañu foorante mais loolu la lay bi di jox. comprendre waa non mais waali moo toll noonu mais kaay ma wax la gis nga boo amee alal bu la nit yàlla joxe alal danga koy tiitaroo waali alal la ci réew mi. comprendre nga lan moo tax ñi nga xam ne dañuy ànd di defar jikko yi wala ànd di di di sàmm neneen xale yi lañuy bañ ko leen yàq waali li muy li muy li muy jàngal xale yi ci lu baax mu ëpp leneen lan moo tax tey bu waali génnee dimbali doomu aadama wala mu génn def geste ay SOS ak wala yu mënti doon wala tabaski jot mu génne ay xar di ko séddale jaam ñi lan moo tax du ñëw ni waali mi ngi jàngal sunu xale yi lu baax boo bu baax boobu duñ ci wax moom laa lay wax sànq ni la dañ dañu war di jàng fësal mbaax tey nëbbu lu bon. yu waale yu baax yëpp fuuf fii kenn baax fii fépp non non. il paraît que xol ngay waxee de parce que da am loo dencoon loo xam ne dafa mel ni da ko bëggee a génn. parce que non du question denc sax parce que ñun tolluñu ci mer ñun dañoo toll ci sant suñu borom bu baax a baax a baax ndax nag Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mooy gën gi mbindeef te ñëpp neewuñu woon waaw. xaarim rasul Serigne Touba yaakaari jàmm ñi sonnal réew mi bi mu fi nekkee ba ni mu fi jógee ci coono ne ngir doomu aadama ñëpp neewuñu waaw kon ñun ñooy ñan mënuñoo mer dañuy sant suñu borom kay comprendre nga mais dinañ wax ba ñëpp dégguñu parce que làmmiñ la yor ñu ñu yore yore làmmiñ comprendre nga bu ñu ko bëggee jël mbir mi génn ko cadre musique loolu seen seen problème la dañ leen fay fekk. comprendre parce que ñu ay xale ndawuñu dara. non dawuñu dara. làmmiñ mënul lekk moroomam te loolu la demee da ngay gis façon nit bu nekk boo xamante waa def vidéo yi naa nga wax say wax yu kenn xamul te pourtant bi nga gisee gestes yu baax yi defoo vidéo wax man kan laa mën a déglu mooy koo xam ne bu lu rafet amee mu génn wax ko. léegi Moustapha Dramé mi doon wax ne baal ma foofu waa demal. ki nga xamante ne nii bu lu baax génn amee mu génn filmer boppam wax ko parce que léegi ñëpp a télé filmer sa bopp souligner lu baax loolu non kooku bu lu bon amee bu taxawee wax ko dama koy déglu man mais bu lu baax amee kenn du la dégg bu lu rafet amee kenn du la dégg non boo boo gisee faqastalu wala lu mu mënti doon nga génn di ratatat yor sa làmmiñ dañuy xam ne ku soxor nga rek te soxor la ñu war a éviter fii ci Sénégal parce que baaxul soxor day taal réew. waxu soxor ak yi am na yoo xam baaxul te du tere nit ki li muy am da koy am fi mu war a dem dafay dem li mu war a def da koy def. Eh, Moustapha Dramé mu ne jour soirée ba képp ku newoon ci biir soirée bi musiciens yeeg ñëpp buñ dee safara lañ jëm <laughs> looloo ci wax. kooku man. Euh, euh, soli <laughs> sëñ Fallou. <laughs> waaw xam nga xam nga sànq ni la sànq maa ngi lay wax ni la. Euh, Sénégal dañoo gaaw jàpp nit woowee ko sëriñ wala woowee ko ustaas wala woowee ko imam loolu laa lay wax sëriñ yombul de ustaas dëgg yëgul sax ni waalee ngi way parce que dundul loolu maanaam ñu ngi ci nit ki gis nga boo boo boo am na loo xam ni man mënu maa ko wax daal parce que. am na mais yow yaa ngi ci biir de bu demee ba ne ñu newoon ci biir ñëpp safara lañ jëm. ah defu la dara. waaw loolu mooy soxor loolu mooy soxor yóbbu nit ñi safara mooy soxor fa la soxor fa kooku moo tëj drapeau soxor bi moom mooy kooku yéeneem mooy ñëpp dem safara loolu loolu yéene nit ñi te pourtant war nga romb nit ci lu bon sax nga yéene ko aljana maa nga ñaanal ko parce que fii ku fi kenn mënu fee dem aljana ci sa njàmbaar wala nga dem fi safara ci sa xam fii fii ba fañ jëm ndimbalu suñu borom la ñëpp di ñaan sutura suñu borom yërmande suñu borom la ñëpp di ñaan mais nëbbu say bon bon yor sa làmmiñ ci deru nit ki di wax di di ko génneel ay bon bon wala di ko créer ay bon bon defe ni loolu mën naa tax mu bon non yaa ngi koy baaxal ndax bépp tuuma boo tuumal nit xanaa boo jaa bu dee jàng nga tuuti lu bon tuuma bu dul dëgg nga tuumaal ko nit non lépp loo amoon ci lu baax jox nañ ko kooku léegi da nga ko doon jéem a waaye yaa koy defaral. <laughs> ñu jeexale ko ak li nga xam ne moom moo di euh, sa diggante ak mbay si Ndiaye gis nañ yàggul dara tout tànk bi yow la ko tuddee nga tuur fi ay xéewal yoo xam ne macha allah mbay si buñ nee mbay si moom daf naan fàllu buñ ne fàllu mu ne mbay si seen diggante yéen ñaar lan la. waaw euh, kooku moom maa la koy wax ci début bi ni la ni la sama sama sama dañoo bokk ndey ak baay waaye mu doon sama kilifa doon sama xarit doon sama complice lu mu xam wax ma lu ma xam wax ko lu ko bépp nit ñaan mu bañ bu ko faalu ñaanee mu def ko teg ma fu kawe kawe kawe kawe kawe moom bu bu parce que wax ci moom sax ay cat lay créer rek <laughs> dama koy ñaanal suñu boroom sàmm ko ah euh, defal ko lépp lu mu bëgg suba ba ngoon te mu jikko ci barke borom Tuubaa barke sëñ Fallou mi nga xam ni moom la moom la moom la amul sago ci sëñ Fallou nag waaw macha allah daal yàlla na ko suñu borom sàmm mais moom mënu ma wax ci moom waaw boo gisee nag tuur xéwal boobu boobu ci ci ngént la ci tudd bi. parce que affaire la boo xam ne daf ma surprendre woon parce que euh, foog naa man maa ma d'après li mu def ci man man maa war a toll ci di ko fay wala euh, di ko di ko di ko teral di ko di ko tuddee doom ak yu demee noonu mais moom bu ci bëggee teg di ma di ma def noonu damay damay damay waaw moo tax ma bàyyi keroog waaw mais ba ci ba nii ngeen dëkkee kii dëkk ci kaw kii dëkk ci suuf te dañ doon faral di gis bu ku nekk mënalee sa bopp xajaloo am ku nekk ber sa kër. waaw euh, xam nga ñu nag dañuy ay doomu mas Ndiaye Mass Ama Ndiaye buur géwël mi Thione Seck di way koo xamul dégg nga ko sam papa ba ba ba bi muy ba bi muy làkku dernier kàddoom yu yu yu mu doon gën di saxal mooy. ku tàkkale sama njaboot yàlla bu ma la raw moom dafa bëgg ñuy def nii tout le temps tout le temps tout le temps tey mbéy si boo amoon cent kër maam cent kër mënumaa nekk fu mu nekkul moom mënul nekk fu mu nekkul comprendre nga moo tax euh, yàlla suñu borom daal defalee ñu ko ni ko bëggee rek waaw ba macha allah kontaan nañ ami internet suñu gaal 24 euh, Fallou Benjamin lañ dalaloon tey borom Rita Mbalé sa Rita Mbalé ji moom moo la siiwal xam naa ne moom la ñuy ji euh, lan nga ñuy tàggoo Fallou. li may tàggoowaat mooy wax waxaat du bari wax wax ju yeggul la wala wax joo bëgg ñëpp dégg ko la awma lu may wax lu dul di ñaan jàmm ci réew mi sutura ci réew mi. yàlla nañ ñëpp am jàmm ki ñu bëgg ki ñu bañ ku mu mën a doon yàlla nga am jàmm foo nekk yàlla nga am sutura yàlla nga am tawféex fi nga nekk di ñaan euh, euh, di ñaanal euh, xalif général kullu murid père de la nation Serigne Mountakha taxa Bachir suñu borom yàggal ko fi mu yàgg fi lool lool lool lool ak bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi parce que yàgg fii ñoom mooy suñu njëriñ ñun waaw di wax ni daal nañu gën a bëggantewaat nañu jàppante nañuy yërëmante nañuy supportante ci lu baax ku juum ñu nëbal ko ko. biñ maa la wax lii parce que juum ñëpp a juum ñëpp tey boo ku nit ku juum nga yor sa làmmiñ ji ci wax. yow ana say njuumte yi nga yi nga yi nga bëggul mu siiw amul ku dul juum nag kon nañu ci portante bëggante jàppante bu ñu ko defee rek Sénégal jëm kanam parce que li ñu am ko. macha trop ci Sunugal 24 kontaan ci Siste Eva cameraman bi macha allah jaar na yoon madame Top daf lay bégee kooku mooy euh, chéri Aliou Top DG. moom day toog ba ci yàgg sax mu ne wëral ma Benjamin Rita Mballe fan la nekk xam nga yor ko ci portable am kooku daf lay béggee bu baax a baax euh, moom tamit dañ koy euh, baaxee li nga xam ne moom moo di émission bi madame Top Fallou ngi nii toog lan ngay wax madame Top. ah di ko béggee rek euh, di kontaan ci moom ndax ñun bu ñu gisee kenn ku ñu bëgg non day day day doon jamaa ci ñun parce que dañ naan benn bi la bëgg jar na daw ba dee ngir ki la donc ñu ngi bëggee madame Top bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm fa mu ne jaajëf ami internet ci suñu gaal 24 Fallou lañ leen indiloon tey borom Rita Mbalé du ma ci di ko wax Rita Mbalé jëy lëmbe àdduna sénégalais yi bëgg ko xale yi di ko fooye mag ñi di ko tëddaaloo xale yi jigéen di ko demee plage xale yi góor di ko doy yaa ma gën a xam daal Fallou Aïcha ñu daal di tëj li nga xam ne moom moo di émission bi cant ngërëm day ñeel ñi nga xam ne ñooy seetaan suñu gaal 24 ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew a nekk te duñu dem ci ñeneen ñi nga xam ne soxla ngeen ko dinañ dem ba foofu wala ñu invité leen studio toog waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom moo di kafoo agré ak bégalante dañuy bégee di sant di gërëm ñëpp ñu ñuy seetaan ay ca fàllu